asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bu baax baax ravi de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne A2S Pro avec un immense plaisir continuez leen di abonné ngeen bës cloche de notification bi su ko defee bépp vidéo bu ñu dugal ngeen mën ko am à temps réel bu leen fàtte di like vidéo madame di ko aimer di partager di commenter comme on a l'habitude de le faire di wax sur ce qui concerne l'actualité sénégalaise tey nag dañuy wax ak euh, benn oustaz bu ñuy wax oustaz Cheikh Ahmed Tijan Ndao mu nekk koo xam ne euh, ku ko yàgg naw laa ku ko yàgg bëgg laa ku ko yàgg topp laa waaye dafa am lu taxoon ma ko doon déglu am lu taxoon ma ko doon topp mooy dama jàppoon ne boroom xam-xam bu màndu la jàppoon ne tamit li yonent bi wax ne al ulama warasatul anbiya loolu dafa nekk ci moom mooy boroom xam-xam yi ñoom ñoo doon yonent yi te yonent yi seen mission ñëpp xamoon nañ ne mooy ñëw di acte deug di xex injustice di war nit ñi pour ñu téggu ci yoonu yàlla di len moytu lo togn di len moytu lo bàkkaar di len moytu lo bokalé donc kon su fekkee ne yonent bi dafa wax ne al ulama warasatul anbiya borom xam-xam ñom ñoo don yonent yi man ma sédel ko ne borom xam-xam la parce que yag na ko top depuis radio dunya ci émission bu tuddu kalimatul haqq ak qissatul anbiya moy émission bo xamné daf say netali jaar jaaru yonent yi man na woon ko lool doon ko topp à chaque fois di ci jàng tamit waaye dafa jékki-jékki bet ma bet boo xamante ni dafa jéggi dayoo parce que man xaaruma ko woon man fi ma ko doon xaar mooy li yonent bi wax na al ulama warasatul anbiya mu def rôle boobu noonu rôle bi nga yonent yi ñu ko comme lu yàlla waxoon yonent yàlla daawuda na ko yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatun fi l ardi faxkum bayna annaasi bil xaqi wala tattabi al hawa fa yudillaka an sabilillah yow daawuda dama la def sama xalifa ci kaw suuf del àtte ci diggante nit ñi dëgg bul topp sa bànneexu bakkan te nga tegu ci yoonu yàlla defe naa ne boroom xam-xam bu nekk ci dëkk rawatina ak dëkk bu mel ni Sénégal nga xam ne dañoo am benn président boo xam ne ñëpp teg nañ seen bët ne day jaay doole day noot ay nit day jàpp ay nit di leen tëj ci kaso bi te defuñ ko dara léppam politique la muy xañ nit ñi seen àq ak seen yelleef mu ngi wor nit ñi mu ngi wax nit ñi lu dul dëgg il est ay nitam dañoo violant di recrité ay nervi di recrité ay saagakat di def loo xamante ni ay ñaawteef la yu nit ñi teg seen bët ay nitam di sàcc xaalis nit ñi di ko gis ñu leen di épingler ci ay ay corps de contrôle di leen épingler di leen yóbbu justice muy acharné wu ci ay nit yoo xam ne defuñ ko dara fexe di leen tëj lu kaso di tere ay candidat pour ñu nekk candidat di leen recalé ci ay élection te amu ci benn droit jël constitution bi di ko jalgati di ci def lu ko neex di voté ay loi site di jiiñ ay nit ay terroriste di leen jiiñ ay rebelle di leen jiiñ ay euh, terro euh, ay ay force spéciale ay commando te loolu yëpp yow yaa ngi ciy teg sa bët te xam nga ne jaaduwul tey jaaduwul ëllëg su dee far la nag am nga droit nga faral ku la neex waaye yonent bi dafa ne unzur axaaka zaliman aw di dimbalal sa mbokk su tooñee ak buñ ko tooñee alxuraan wax ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan ànd leen ci dimbalante ak ragal yàlla waaye bu leen ànd mukk ci tooñ ak bàkkaar soo choisiree Macky Sall ne moom nga àndal àndal ak moom ci dëgg en tant que nitu diine yow dañuy dañuy séntu ci yow nga ànd ak nit ci dëgg dañuy séntu ci yow ngay jëfee aaya yàlla yi maanaam nga koy pratiquer nekkut loo xam ne théorie la war a nekk ci yow ngay toog ci rajo bi di waaraate maanaam yow texte yi yow si bopp sa sa bopp yow yaa ko njëkk war a njëkk appliquer yow parce que da ngay toog di waar ay nit di leen wax ne ne yàlla ni nee na yonent bi nee na li olof di wax ne kuy digle càngaay da nga cee war a jiitu dangaa def loo xam ne nag lu xaraam la lu bon la en tant que nitu diine en tant que koo xam ne dafay def daawa ci yoonu lislaam di waaraate kooku référence la war a nekk da nga def lu ñuy tuddee wax lu dul dëgg maanaam fen da nga def lu ñuy sosal gor té lolu mënoon nañ ko sentu ci kenen bam dess yow parce que yow da nga jang alquran nek borom xam-xam jang hadis Yunus bi sallallahu alaihi wasallam bay tok di warate kon lolu yow ya ko wara ñëk jëfé té xam nga ne fen dafa haram, fen lu bono bon la yonent bi bi ñu ko laajee daf ne jullit du fen parce que fen mën na taal réew yow danga waroon a bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy stabiliser réew mi nekk ay régulateurs sociaux yow ci nga waroon ci ñooñu nga waroon a bokk parce que da nga bëri ay soppe yi la doon déglu ci rajo bi benn ci man mii ba ci internet ba léegi nii dama la daan déglu mais dootuma la déglooti parce que doyatoo ma bës ni ki tey dootuma la déglooti man wóoruma sax ndax la nga daan wax di ko nettali ci ay histoire yonent beeg yooyu noonu ndax lu wér la wala déet parce que xam nga histoire dafa bëri ay werante ñii dañuy wax lii ñuy wax lële mais yow comme dangaa nekk nit koo xam ne dangay toog léegi di sosal ay nit mënatoo wax lu ma gëm man te la ma daan déglu ci yow gëmatuma ci dara dinaa dem xooli keneen koo xam ne moo la gën a màndu ma dem di ko dégluwaat di mën a jàngaatee ci moom da nga waxal Ousmane Sonko wax ju bon wax ju ñaaw wax ju salte ba paré bi nga waxé wax ju ba paré da nga ne wax joju wax ju bon la mais yow li nga def mo gëna bon ndax in jaakum fasikhun bi naba'in fatabayyanu loolu la alquran wax bu la say say wala indi lay xibar da ngay leerlu te man gëw ma ne sax ne katchor mo la indil waye waaye nga nek nervi religieux da nga bok ci nervi religieux yi nga xamne ne keur Macky Sall dañ leen recruter pour di diaboliser Ousmane Sonko di yak deram té lolu nak ça ne passera pas parce que ñun ñoo nek Sénégal ay nit yo xamna ñoo waron defar réew mi di ay nit ñoo xamna dañoo jang diiné nit ñi wara am ci ñoom yaakar ne ci ñoom lañu wara sento ñi séentoo deug ci ñoom lañu wara sento mandu ci ñoom lañu wara sento njub ñu ñew di encourager kat di faral burbo bo xamne day toroxal ay doomi day japp ay nit di len xagn sen ak ak sen yelef nga koy faral ba pare di ko di def lu ñuy tuddé par parlo so andon ak mom sax nopi te mandu ñu mëna wax waye bo démé bay wax da nga wara wax deug sa sos yi nga sos xam nga moy lan da nga wax ne Ousmane Sonko ci bopam mo wax ne xalé yi ñew leen xeexle ma ku dé sa yaay juraat loolu ay fen la du dëgg tey du dëgg ëllëg te maa ngi lay yebal nga dem ci internet bi nga gëstuwaat li Ousmane Sonko wax su fekkee nekkul yaa ko tey su fekkee ne nekkoo nervi religieux bu ñu recruter pour ñuy jéem a dénigrer Ousmane Sonko parce que léegi euh, nitu diine lañ jël léegi ci nitu diine yi lañ lañ dem pour ñuy yàq deru Ousmane Sonko parce que nitu diine yi dañuy am crédibilité. nit ñi dañ leen di respecté ba bu ñu waxee nit ñi dañ koy gëm moo tax léegi foofu lañ jaar ku nangu nag ñu lay utiliser di la yàqloo nit te yow nga nekk jàngkati alxuraan nekk koo xam ne boroom xam-xam nga di def daawa ci yoonu lislaam ku la gën a bon ku la gën a yées amul ku la gën a xaraam amul te da ngaa war a bàyyi waaraate bés ni ki tey parce que doo référence Ousmane Sonko daf doon def benn discours mu ne. xale yi de nee nañ ku dee sa yaay jurat lool la wax xale yi ñoo wax Ousmane Sonko mosul wax lool mune bu soobee yalla dee sax du ci am je le répète la répétition est pédagogique dam leen ci internet bi ngeen wat cadre Ousmane Sonko yoy non parce que fi kenn mënu fay sosal kenn te duñ tok mukk di leen seetaan ngeen di yak doomi jàmbur ndax ay alalu aduna jamais de la vie ñun dëgg rek. ndax wa qul jaa alxaq wa zahaqa albatil inna albatila kaana zahuqa qul alxaq walaw kaana murran ñun ci dëgg la ñuy dee ñun poñetu àdduna yii ñun intéressé wuñu ñun ñun duñ def istaraw bi ayatillahi samanan qalilan ñun duñ jël ay yàlla yi di ko weccee di ko jëndee ak njëg boo xamante ni duñ njëgu dara lu dul ay riba alal ju salte alal ju bon joo xam ne sénégalais yi ñoom ñoo ko moom bu ñu feebaree ci la ne si lañ war a faju té ku ci fièvre yaangi dé ci hôpitaux yi ndax plateau médical bu bon ci lañ warona am ndox mu baax mu ñuy naan muy eau potable ta sénégalais yi amuñ eau potable dakar sax capital bi amul eau potable ci lañ waron di jang ci école yu baax té sénégal ba légui mu ngi am ay abri provisoire ak yenen ak yenen créé ci ay école de métier xalé yi di mëna liggéey xaliss bobu lañ jël di leen ko géré yeen ngeen di ay nitu diina ngeen yene bon yene haram yakaro yaket da ngay tas yakaro sénégalais yi yene tax ngeen bëgg japp ben gor bu set wetch bo xam deful dara ngeen di ngeen ko yak kut ko kut lamagn du lek moromam te ñorut lu ngeen fi lal dinañ ko lal inshallah allah ma répété wat ko Ousmane Sonko daf ne xalé yi nenañ ku dé sa yaay jurat dedet bu sobe yalla dee sax du ci am léegi nak benen bi mu ne Ousmane Sonko fay xex pour falu te Abdoulaye Wade xex na 26 ans ñu tejj ko kasso ay yoon yoon mu waxon na je vais pas marcher sur des cadavres pour rentrer au palais nee na Abdoulaye Wade loolu la wax te mujj na falu léegi kon yow da nga japp ne Ousmane Sonko mom dañ ko wara tejj kasso même sax su lu dul sax mom dañ ka wara japp tejj ko kasso benn bi mu ngi noonu benen bi nga indi histoire euh, Thomas Sankara te liñ ci wax dara du ci deug demewul non wala taqfu ma laysa laka bihi ilm boy wax da ngay wax ci lo xam ni ko netale demewul non nit da ngay mandu di wax deug leg nga na Thomas Sankara mom. dañ ko fekk mu tok ñu ray ko mom masul génne ay xalé na len ñew len xex jital xalé yi xalé yi di dee kon yow léegi danga bëgg ñu ray Ousmane Sonko quoi comme ni ñu rayee woon Thomas Sankara loolu nga bëgg parce que da nga roy Thomas Sankara nga xam ne ay panafricain lañ ñoom noonu la ñu war a mel quoi comme ni Thomas Sankara mel joxe boppam ñu dóor ko balu fetal mu dee quoi su fekkee da nga bëgg a ray Ousmane utal fetal yow nga dem fekk ko sa kër góor gi nga dóor ko bal mu dee comme da nga ko bañ li dal Thomas Sankara loolu nga ko yéene wala nga wax Macky Sall mu jël fetal dóor ko Ousmane mu dee Macky Sall mi ngay jàppale léegi dal kon dëkk président de la république yow tu tous les pouvoirs tu as tous les droits am nga droit di la ay nit am droit utiliser justice di ay nit bëgg leen a ci bi et puis vous ne respectez pas les sénégalais Ousmane Sonko mu singali Sen ay les sénégalais Yo ne leen ci Sénégal amul dara lu Sénégalais. leen ñoo ko

waa léegi man maa ngi lay laaj yow Macky Sall li muy def yow lan ngay reprocher Macky Sall man man naa laa waatal ci alxuraan ne jikko yi màkki Sall yore barke alxuraanul karim billaahi wallaahi watallaahi soo bëggee ñu waat ko man ak yow amul benn jikko bu yàlla gërëm ci alxuraan wala yonent bi gërëm ko ci ay xadis boo xam ne mu ngi ci màkki Sall dàll Ousmane Sonko moo gën Macky Sall jikko yi nekk ci Ousmane sonk moo gën jikko yi nekk ci màkki Sall Ousmane Sonko moo ko gën a ragal yàlla moo ko gën a jub moo ko gën a nekk patriote moo ko gën a moo ko dàq jaamu yàlla fuuf du moroomam ëpp ko lu muy jomb ëpp ko lu muy bañ gën ko jullite su fekkee ne waaraatekat nga ussage nga defe naa ne boo doon tànn jikko ju rafet ci Ousmane Sonko nga koy fekk waaye comme Macky Sall mooy président moo yore caisse noire bi moom ngeen di faral mais ñun on s'en fout de la caisse noire ñun ñun soxlawuñ xaalis boobu salte boobu noonu xaalisu sénégalais yi sonn yële yu pauvre yële soxlawuñ ko suñ yoon nekku ci fu xam na jëm ak xaalis bi comme nag yéen soxla ngeen xaalis boobu tax ngeen topp ci gannaawam di ko yàqal deru benn doomi aadama boo xam ne joteewu leen ak moom dara lekk leen waaye fii butuuni him naaran Macky Sall lu ñu def ci constitution bi muy nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs mu bëgg a forcer ne day day day day war Sénégalais yi constitution bi ne day am troisième candidature yow lool la nga ci wax té bind na ko ci livre ginaaw bu mu organiser élection référendum bi def ci ay milliards Sénégal au cœur bind na ko ci né mom ñaari mandat lay def né mandat bi mom ma nek moy sama premier mandat su ngeen ma renouveler seen confiance 2019 mooy nekk sama deuxième et second mandat wax ko ci ay rencontre yi solaanal yëpp yaa ayyuha alladina amanu li ma taquluuna ma laa tafaaluun kabura maxatan inda allahi an taqulu ma laa tafaaluun da ngay waaraate waar wax ko loolu yow kañ waroo faral nit koo xam ne day waar waroo faral nit koo xamante ni dafay fen waa léegi yow su fekkee dafa am looy reproché waate Ousmane Sonko amoo dara loo ko reproché parce que moom ne yorul nguur moom dafa dafay def si droit yam la nekk dafa am droit nekk opposant comme ni Macky Sall amee woon droit nekk opposant ñu ne ko do fi nekké opposant diko tégal ay ndëgg sëlëx diko ko jiñ njaalo maanaam viol diko créer ay dossier justice bëgg tass yaakaaru des millions de sénégalais yow nga né yow da ngay jappalé Macky Sall yow yow nga wara reprocher Macky Sall yu ñaaw yu mi def reprocher woko dara nga ñëw ci Ousmane Sonko mi deful dara mi nga mom lañuy togn diko xagn akam di barricade buntu kërëm té pourtant mas nañ barricade buntu kërëm ben ajuma ba téré ko mu dem julli ju ayyuhallazina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وزروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا خذي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يو سمرو مجلد موم لن انتردير مدام جلجي جمعة تسي موما بوب نون ريبريزانتول أوكين مناس يورو الأرم amul benn menace bu mu doon représenté ci jamono jot Macky sàll yebal ay police ay policiers force de l'ordre ñu dem buntu këram barricade ko mu bëgg a julli jumaa ñu ne ko doo julli ji te yàlla wax na jullit bu nekk bu ñu ootee euh, jour ajuma dem leen ngeen julli ji ngeen bàyyi seen activité yëpp ngeen dem julli ji su ngeen jullee ba pare ngeen tasaaroo waat ci suuf ci ku dem ku nekk dem sàkku ji sa ngëneel loolu waxoo ko de waa léegi Covid bii nii ñu génn. mille milliards yi waa këram yi sàcc corps corps de contrôle yi épingle leen mooy cour des comptes ne dañoo sàcc suñ mille milliards gorom bokk ci juuf Sarr bokk ci te temps yi nommé na Diouf Sarr directeur waa léegi lan ngay wax ci loolu yow ñooñu kañ ñoom ñoo def mu leer naññi ba ne fàng waa léegi yow procès en diffamation nit ki dañ kaa épinglé loolu politiciens yàgg nañu waxante loolu seen biir yu gën a garaaw yooyu waa léegi ñu jël ci nit convoqué ko tribunal muy dem ñu ne ko doo jaar fii fii ngay jaar dëkk bi tàkk ba ay nit dee ci loolu yow da nga koy cautionné yow loolu jar na ko jar na ñuy euh, barricade buntu kër jàmbur jar nañu bunkériser dakaar génne ay armada mel ni dafa am guerre lu tax dénoncé woo loolu yow naa fekk nga wax dëgg yàlla neexul ba neexul mais naa fekk nga doomi jàmbur yu mu jàpp tëj ci kaso bi te defuñ dara chaque jour yaa ngi déglu rajo di seetaan télé di dégg ay juriste xam ne ñii lu ñu leen jàppee moom mu ngi nekk ak ay nit yoo xam ne def nañ lu gën a garaaw mille fois mu jàpp leen tëj leen mu jàpp doomi jàmbur yooyu tëj leen ci kaso bi ba pare làq ay nitam yoo xamante ni def nañ lu gën a garaaw lool. am na ñoo xamante ni post Facebook lañ leen jàppee tëj leen ci kaso bi wax seen xalaat. ci moment boobu am na ko muy àndal ko tudd Ahmed Suzanne Camara wax na fi ne nañ dem rey Ousmane Sonko nañ dem taal kër Ousmane Sonko am na keneen ko ànd ak Pape Malick Ndour wax na nañ dem taal kër Ousmane Sonko. seen live ba mu nekk Pikine waaju salte ju tilim jooju fa turam sax bëgguma ci jaar parce que tekkiwul dara ñu ne mën naa leen tudd mais moom duma ko tudd taxaw na fii Didier Badji ak Fulbert Sambou disparaitre mu ne mu ngi féliciter général Moussa Fall ci dee bi nga xam ne. Didier Badji dee Fulbert Samp parce que nous ay traître lañ dañu nek ci gendarmerie ñi Nous ci armée bi di jox Ousmane Sonko ay information moy enquête interne de la gendarmerie bu fuité won té kooku defuñ ko dara amé ñëwaat wax na lan lan la wax na dañ parce que nous laalé ci enquête fuité bu gendarmerie defu ko dara lu tax yow dénoncé yow da ngay wax deug rek yow li nga wara wax Macky Sall mu ngi waa léegi lan ngay wax ci Fulbert Sambou bi disparaitre ak Didier yi te ba léegi defuñ ci enquête ubbiwuñ ci enquête gendarmerie communiqué communiqué wu ci armée bi communiqué wu ci lan ngay wax ci loolu yow François Mancabou bu ñu yóbbu euh, SU sûreté urbaine torturé ko ba mu dee lan ngay wax ci loolu yow en tant que nitu diine xale yi dee woon ci événement mois de mars yi même su fekkee ne dañ ne Macky Sall rayu leen su fekkee loolu nga gëm yow waa léegi Macky Sall moo yore nguur gi waa léegi lu tax ubbi wu ci enquête ñu xam lan moo rey xale yi parce que sa doom bokk ci sa jarbaat bokk ci sa sët bokk ci am na yeneen xale yi deewaat ci yeneen manifestation xale bi auto police mbëkk mu dee ana policier yooyu noonu lu tax waxoo leen dara ñu ubbi ci enquête xale bi ñu dóoroon parcel balu fetel à bout portant xol xale ba mu nekk mu dóor ko bal xale bi daanu dé police bi ma ngay dox ay soxlam te lool Sénégal rek la am justice bu jàng bi lu tax waxoo ci yaayu lazina amanu kunu qawamin bil qist shuhada lillahi walaw ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin loolu la yàlla wax xam nga ko léegi lu tax doo yedd justice bi nga xam dañuy acharné wu ci kaw Ousmane Sonko te am ay dossiers yoo xamante ni tey yàgg na foofu te kenn attewu ko ñuy accélérer dossier Ousmane Sonko bi pour rendre ko inéligible ak yeneen ak yeneen yoo xam ne su ma ko doon lim fii dafay jeex gis nga Sénégal dañoo toll ci lu ñuy tuddee gat sa gat sa bi Ousmane Sonko oote man foofu laa toll man gis nga képp ku génn. di jaay na fekk nan da ngay yak deru doomi jambour bo xamne defu la dara ko xamne sa ay nawle sénégalais ñoko bëgg comme yow ni nga amé droit bëggé Macky Sall nga ne da ngay tok yak ko yow lool duñ ko nangu man de duma ko nangu nit ku genn wax loo warta wax lo xamante du dëgg man dina jël sama propre responsabilité genn tontu la su fekke da nga fen manal da ngay fen alaykum wa rahmatullah